jamono jile nag kii di Boubacar Diallo daal dinay bokk ci cercle des polygames fii ci diiwaanuk Sénégal Boubacar Diallo séeri Mame jaara guddi yi la ñu toll ñaari galon lay doxee ndaxte kii di Boubacar Diallo dem na seeti ji perle bu gën a raar ci diiwaanuk Sénégal di Yacine Diouf ñu gën kaa xam ci dol su mu daal di koy jël def ko ñaareel mu nekk la puissante guddi yi la ñu toll Boubacar jàlloo góoru ñaari jabar la séeri Mame Diarra mbir mu ni mel bett lool ñu bari ci ay fansam ndaxte kenn ku ci nekk yaa ngi doon xalaat ne Boubacar Diallo Diallo ci maam jaara rek lay yam waye Boubacar Diallo nak dal dinay xam ni góor gu ñuy ay ay loola guddee la ñu toll Boubacar Diallo dal dinay yor ñaari jeek Yassine Diouf alias Dolcias ak première dame di mam jaara tay suñu sukkandikoo ci xibaar yoyé ki di mam maam bobu lay tak da ka jëlee avec philosophie manam dal gu mot seuk la ci wane buñu ñu ci limameti.com ñom com joxé bobu joxe xibaar xana rek di souhaiter heureux ménage Boubacar Diallo